waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki ahlul xadis maa ngi leen di ziyaara bu baax kenn ku nekk ci turam ak jëmmam xam naa bon euh, yaakaaroon naa ne waruma cee wax sax ndax euh, yu bëree bëri waaye xawoon naa jàpp itam ala kulli xaalin déglu naa sëriñ bi di al oustaz Cheikh Aboubacar Thioub seulement que li mu wax xaw na ma jaaxal tuuti ndax euh, bu ñëwee di wax ne man ni may waxee ak moom ci suuf damay dal dafay sedd dafay nooy waaye bu may wax ci groupe bi dafay mel ni nangam ak nangam maanaam mel ni kuy sous-entendre que ne man damay def nifaaq wala dafa am lu ma ragal ci moom ba bu ma wéetee ak moom di nooyal wala waaye bu ma nekkee fu mu nekkul di wax ci kaw nangam ak nangam yaakaar naa ne képp ku ma xam xam na ci man mais je sais la part des choses képp ku ma xam xam na ci man loolu. même wahabiste sax bu may wax ak moom ci suuf wala bu may jokkoo ak moom du bokk ak moment bi may wax ak moom ci groupe wala bu may traité ak moom masala même wahabiste sàkkantumaa nag samay mbokk mu tasawifa sàkkantumaa nag koo xamante ne dañoo bokk lu bëri donc lii képp ku ma xam mën na koo seede jarul ma ci attardé wu euh, bu jàppee ne dafa am dara lu ma ragal ci moom comme ni ma ko bindee sànq mu ngi juum mu ngi juum euh, ñaareel bi itam mooy sëriñ bi wax na ba ci mujjantali waxam muy wax naan kalli kalle kuy jàng kenn mënu laa kalli kalle wala ku jàng man nag ndeysaan problème bi mooy man moom damaa jàngut man xaw ma dara man moom wax dëgg yàlla ci ijili boole lañ toll ba léegi donc ñoom kilifa yi jàng xëy na ñoom kenn hmm. mënu leen na wax dara ci xam-xam lu ñu xamul waaye ñun chaque jour ñu ngi ut euh, ci xam-xam yàlla nañu yàlla may ñu commencé jàng te buñ commencé jàng yàlla nañu am xam-xam ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam baatu kalli amutoon place fii wax dëgg yàlla ndax jàpp naa ne kenn jugut pour kalli kallee kenn dañ doon waxtaan man nee naa waxtaan la moom nee na amul problème ak nuñ ko mën ci tuddee dañ doon échanger wante échange boobu faw mu am yoon bu mu jaar pour liñ bëgg leeral mu leeral te mënta jaar ci yoon bu ëpp wala bu gën a yomb bu gën a efficace laaj ak tontu danga may laaj ma tontu la dama lay laaj nga tontu ma léegi xëy na moom ay laajam bariwul woon man xëy na samay laaj bëri nañ prochainement xëy na ay laajam mooy ëpp samay laaj wala nangam ça dépend ci sujet li ak kenn ku nekk lim ci am laaj naa la benn ñaar ñett ñeent nga ñëw nekk boo ma laajatee du ma tontu. lii dafa yomb nangam nàngam nangam lii du débat naka laa mën a tuddee loolu bu dut infial bu dut in naka laa ko mën a tuddee bu dut emporté euh, emporté wu euh, ñaareel bi itam mooy laaj bi laajuma ngir ndëgg sërëxal kenn wala ngir binaa ci lim wax billahi allazi la duma dugg ci débat bu ma amul assez de bagage man Cheikh Baye du ma dugg ci baga ci débat bu ma amul assez de yàgg naa di ko wax bépp thème bu ma ñemee taxaw fëgg sama dënn dinaa ko traité ak nit wala dinaa ko traité man kenn wala dinaa ci wax na la leer ne xool naa ci minal alif ilal ya ba buñ ma fàttee dinaa am fu ma génne lii yàgg naa di ko wax te yaakaar naa ku ma yàgg topp war na koo gëm léegi même bu ko gëmutoon au début donc jàpp ne jàpp ne dama lay laaj pour nga tontu ci li nga wax pour ma am lu ma jafandu wala pour ma jafandu ci sa wax c'est une illusion c'est une illusion mm. parce que léeg-léeg dinaa laaj nit laaj boo xamante ne li muy tontu après man maa ko gën a xam mën naa kaa wax sax li mu war a tontu ba pare laaj ba pare tegal ko ci leneen surtout ci thème yu mel nii moom maa ngi ciy dalal sa xel di ci dalal xel yépp mën naa laa commencé minal alif ilal yaa boo commencé wax mën naa laa commencé fi nga bëgg a commencé ak la nga ci war a wax imaam diw la ci wax mën naa la kaa indil ak la nga ci istishade boo paree ma tontu la tontuwaale ko moom tamit euh, mawduu boo jekku tem boo jekku ak tem boo jekkuwul du benn tem bu ma jekkuwul moom du ma ci palabre masala bu ma jekkuwul du ma ci wax mais masala bii nii taxaddusan bi nicmatillahi ci tàkkusaanu aljuma lañ nekk du ma wax lu ma kii ibnu taymiya bu dekkiwaatoon bu ma ci waree waxtaan ak moom soxlawu xool téere ibnu taymiya laa la bii nii ay adalatu sahaba sahabi nangam nii ibnu taymiya ibnu taymiya ahmad ibnu abdul halim bu dekkiwaatoon bu ma ci waree discuter ak moom soxlawu ma xool benn këyit parce que walillahi alhamdu bu dee ci masala bii la moom علمي معي حيثما يممت يتبعني لا ما حوى دفتري منه وصندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق il suffit juste ma am place bu calme il suffit juste ma am temps libre il suffit juste ma am connexion bu baax c'est fini wa hatta law kaana ifritu min al jinni ñëw naa cee discuter ak moom ndax walillahi alhamdu ah kon bul jàpp ne dama lay laaj question pour dëgg sërixal la question yi ma lay laaj xam naa ko borom téere ba nga jëlee wax ji mën naa kaa tontu moom ci boppam parce que borom téere bi ci boppam bu ma taxawee ne ko indil isnaad ci li Ahmad ibn Hanbal surtout hadis boobu hadisu layatlu anna aleykum min hadal faj yi xëy na danga ma du topp bu baax ci youtube beeg yooyu mais boo demoon remonté tuuti am na benn débat bu ma ci mës a def ak oustaz Ismaïla Guèye oustaz Malick Mbaye boole moo doxoon sama diggante ak moom yaakaar naa débat bi diire woon na trois jours xaw ma deux bu neex a neex a neex lii nii yëpp romboon nañ ko lépp ay Abdou Razak Chii la Bakar ibn al-Haytham Majhul la Barazuri lépp romboon nañ ko donc hadith bi bu ko indee man après damay reetaan parce que la ci war a wax yow ak taalilaat ya nga ci war a indi comme ilal xam naa lépp te ba pare xam naa tontu bi waaye nag dafa fekk ne léeg-léeg. réeréer nit dinay waral yenn yi dëgg la daif la dëgg la awma xujaj yu bari dëgg la nangam waaye laa taxqiram rain min gayri tajribatin fa rubbama qaama insanun maqaama fi a addaalu wazzaalu fi taswiri waxidatun waddaalu arbaatun wazzaalu sabu mia loolu il faut ñu koy bàyyi xel léeg-léeg te wax dëgg yàlla man am nga place ci sama xol bi place boo xamante ne bu ma sañoon yenn yi du am yenn yi du am gis naa li nga bind sànq ay man taalibe bàyyi laa duma taalibe bàyyi aw sa bon ala kulli xaal tanaabus bil alqaab yeeg yenn yi xam nga man ñëwuma naan la Babacar Thioub joolaa Babacar Thioub catégorie wala nangam jaru ko <laughs> jaru ko <laughs> man saaga nday rek laa déggul ci whatsapp bi te am na sax ñu koy def d'ailleurs lu nekk yekk nañ ma ko eh, laa azidu ala zalika damay daf may reetaan loo rek parce damay xam ne buñ demee ba tollu foofu rek yaa quelque chose yaa quelque chose qui cloche yàlla baax na man walillahi alhamdu di euh, lekk man baaxaguma maa ngi ñaan yàlla baax xamaguma maa ngi ñaan yàlla xam jubaguma maa ngi ñaan yàlla jub waaye yàlla may na ma ay maam yoo xamante ne ku nekk mën na leen a tiitaroo ci àdduna bi bu la neexee nga ooyee leen awsa rek bu la neexee nga ooyee leen joola bu la neexee nga ooyee leen séeréer bu la neexee nga ooyee leen manding bu la neexee nga ooyee leen ay mongol waaye ñëpp xam nañ Cheikh Ousmane bin Fodi ñëpp xam nañ Cheikh Abdullahi bin Fodi li ñu liggéeyal lislaam li ñu liggéeyal diine ak xam-xam waxuma ne maam it kenn liggéey ko waaye bëriwut walillahi alhamdu donc yenn yi tamit mënoon naa ñàkk sama surtout sama diggante ak yow te def débat ba pare ñëw leeral sëriñ bi yow bi nga fi waxtaanee ak sang Ndiaye def ngeen lu mot un mois yi ñaar ku nekk saa yu amee panel dina wax ba léegi nii pareegu leen sang njaay pareegu ci ba léegi saa ngeen amee panel di ngeen dellu si migration nguunu ngaa naan yow démb biñ démarré ba nekk ci groupe ba continuer di wax donc man war nga ma mën a may quand même le ñëw ci groupe bi nga xamante ne maa ko ubbi am ci ay nit ñu ci daje ma ñëw ne leen man débat bi nii laa ko gisee woon nii la demee waaye du ne débat bi dama cee amul li ma bëgg man bu ma amee benn ësëf bu may am ci waxtaan wi mooy bu ma sañoon waxtaan bu duré une semaine lay doon chaque jour ñu am une heure wala deux heures de temps parce que masala bi walilahi alhamdu li liñ ci yor deux heures de temps jeexalu ko sëriñ deux heures de temps jeexalu ko euh, te man bi ma ñëwee tarkisuma ci sa jëmm ji wax dëgg yàlla ñëw ma naan oustaz diw oustaz baabu ko ci bu nangam nangam ak nangam déedéet dama ñëw ne ki ma doon waxtaan ak bu ma sañoon du ma débat ak moom parce que li ñu bokk ak nangam ak nangam ma bàyyi ko fa nag ñëw ci jëmmi tam bi maanaam unzur li zaatil qawli laa lil qaa'ili sama maam sama maam cheikh abdullahi bin Fodi moom moo ko waxoon munabbihan li baadi ma fi ljaamii min galatin walxulfi lilqaamuusi is huwa fi dal fanni kalgamuusi walam urid ishaa'ata almafaaxiri ala adibin sayidi alakaabiri lakinahu bayaanu qawli shaairi kam taraka al awalu ay lil axiri wala yutaawu aalimun fi baatilin falxaqu maqbulun walaw min jaahili lii sama maam moo ko waxoon donc même buñ ma xasee ci maam yu mel nii moom damay sant yàlla parce que walillahi alhamdu ala kulli xaal euh, sama maam nee na sama maam Abdoulaye bin Fodi nee na fal xaqu maqbulun walaw min jahili donc unzur li zaatil qawli laa lil qaa'ili fal xaqu maqbulun walaw min jahili man laa jëfandikoo damaa ñëw bàyyi fa sa jëmm ji bàyyi fa nangam bàyyi fa nangam nem nag thème bi lan moo tax ñu war koo discuter lan moo tax waree su cee noppi ma daal di indi ne àdduna bi fi mu toll diine lislaam jullit ñi nangam ak nangam yaakaar naa loolu wax dëgg yàlla amul dara lu nit di wax naan bu ma wéetee ak yow damay wax nangam bu ma wéetee ak yow damay wax nangam parce que loolu même bu ma dibaawutoon ak yow même bu ma discutéwutoon ak yow mën naa ñëw ci groupe bi wax ko fi chaque jour daanaka loolu yu mel noonu daay wax même keroog bi wax ci wàllu pétrole bi Aliou Sall laalaa naa ci lu mel noonu saxaafa jullit ñi ñu toll ak seen xalaat ak nangam maak Sall la kenn gënuma ko fee mën a dal waaye bi daj bu ma dajee ak moom day mel ni comme si de rien bi noonu la il faut savoir mettre toute chose à a à sa place maanaam li kulli maqaamin maqaal wa li kulli xaadisin xadis noonu laay dundee man waaye duwut ragal kenn duwut am lu may xof si nit wala duwut ne nit ki dafa am lu ma ëppale ma ciy tiit di awma dara xamaguma dara waaye nag bon alhamdulillah nahnu billahi izzuna yàlla la ñuy kii man wajada allah wajada kulla shay'an wala wajadu lam yajid shay'an ala kulli xaalin ma répété waat encore une fois thème bi thème bu am solo la masala saxaaba masala diine parce que dafa am rapport ak suñu téere yi ñuy jaamoo yàlla ak suñu saq ak suñu dundu tey ak suñu dund tey suñu dund ëllëg noppi ci c'est une grave erreur ci jamono ji ñu toll léegi par exemple xaaral ma joxe benn exemple bu ma laaj benn waay sànq dañ ne as-saxaabatu kulluhum udul kulluhum lañ wax maanaam ñoom ñëpp udul léegi ñu ne la naafeq duwul saxaaba waaw bon on peut mën nañu d'accord loolu léegi laaj bi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy génn àdduna nee nañ cent mille et quelques de personnes la fi bàyyi am nañu wax cent vingt quatre mille nañ jël cent pour bañ a exagérer cent mille personnes la fi bàyyi léegi cent mille personnes yooyu ndax kulluhum udul wala cent vingt quatre mille yooyu yonent bi bàyyi ndax kulluhum udul parce que as saxaabatu kulluhum udul nga wax te nee nga naa fekk duwul saxaaba d'accord na léegi cent mille personnes yooyu ndax kulluhum udul bu dee duwut kulluhum udul ci ñi fi yonent bi bàyyi léegi cent mille personnes yooyu nan nga ba xam ne kulluhum nekkuñu udul ala kulli haal li ma ci leeral yaakaar naa xaydun min faydin la te wax dëgg yàlla ku gis ni jamono di doxee xam ne soxlawaat nañu élever niveau bi mu bañ a nekk niveau euh, très basique bi nga xamante ne mooy inna wajadna asatizana ala ummatin wala naa nangam ala umma waaye ñi dem ci li xam-xam di wax téere yu ñu bind ñu tëf ñu tëf tiis ko ubbi hmm. euh, yaakaar naa daal bu ñu defee loolu muy man que muy yow ak ñeneen ak ñeneen dinañ mën a jëriñ suñu bopp dinañ mën a jëriñ suñ umma te maa ngi lay tàllal loxo itam wax dëgg yàlla loxo bi ma la tàllaloon démb ak barki démb xol bi ma la tàllaloon démb ak barki démb moom laa la tàllal ba léegi ku am place nga ci sama xol bi démb wax naa la ko bind naa la ko ci xul jaal boo xamoon place bi nga am ci man donc lii nii wax dëgg yàlla warul tax yenn yi ak lu ci mënti am xam naa ne man maa am toog parce que Euh, maa ngi jéggalu ndax man maay maay jaahil bi man maay taalibe bi man maay xale bi man maay nangam man maay nangam donc man maay zalum bi man maay jahul bi maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax waaye nag bëggeewu ma ko woon nii te yàlla it ñu continuer ci waxtaan incha allah xam-xam dina génn pourquoi pas sax bis bu yàlla defee mën nañu toog plateau yu gën a yaatu yi peut-être mën na nekk séminaire université wala table ronde yi yëpp mën na ci xaj waaye lépp daal mu nekk ci dënn bu yaatu modestie lépp mu nekk ci nangul keneen itam like position parce que booy débat ak nit bi daa ne dama ko war a convaincre wala dafa war a gëm li ma gëm rek problème day am waaye nag booy débat ak nit di wax ne ah damay am lu ma yokkoo ci moom te man démboo je te le ah, am na lu bëri lu ma yokkoo ci yow xëy nag kenn ku nekk rek ak euh, stratégie am ak euh, ni muy ni muy recevoir message am waaye bon man loolu laa jàppee de même yahudi yi bi may waxtaanal wala salafi wala bouddhiste wala nangam bu may waxtaan ak moom damay jàpp ne dafa war a am lu ma yokkoo ci moom mais duul ne kut ko kut naa ko convaincre te wax naa ko ci muqaddima débat bi in uridu illa l-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullah